waaw sëñ Sam am na benn laaj bu ma la bëgg laaj nii jamono bi demee ñuy tudde suñu bopp ay jullit te àttewul alquran masalan ku nit ñu ne dañ lay tëj ku jam nit duñ la wax dañ lay teg naan la dañ lay àllamaan dañ lay def dañ la ma lay laaj gisee comme noonu ay jullit lañ te àttewuñu li li alquran santaane ne ko nañ la rey te la def gisee baax na laay sax laay sax ak islam sañu loo jàppale bàyyi nii lépp nga mën a jàpp rek mat muy islam atte yi nga xam ne yàlla saxal la ci alquran te benn aaya ñëpp mën koo mën koo dañ waaye nag lay fa islam nag ila waxtaha suñu borom nee na du tag benn jàmm bu fekkante ne ñun jaay si islam ay dox fii nga xam ne gouvernement islamique gouvernement islamique nga xam ne islam lay doxal ni xijaaj dem arab saoudite danoo àttewul gouvernement bi kon nun àttewul sañu noo daggal loxo kenn wala nu rey kenn nun amuñu ci baax baax suur lan nun hmm? am baax jëgal na bu nu moomee suñu mbir nag mën bi te defuñ ko bu boobaa yoon la gis ko leer na ne ñi ko defu nit di leen ko tee seen jiit xel rek la ñuy topp loo xel nangu nangu nañ ko xel nangu nangu wuñ ko ñu dikk nag bëgg noo solal seen moom bëgg a walbati nit ñu xamoon indil nu àtteeb xel àtteeb xel biñ ñu bëgg indil te xel àtteeb ci point de ne ko seet ci ak suñu bi nga xam seetee itam daanu gis ne réew yëpp ak banditisme li gànnaar matale na réew yëpp ba nga xam ne sécurité amul fenn ba mu des Arabie saoudite ñoom ñi saxal yoon ñu xam ne kon li yàlla santaane bu ko nit ñu defee am jàmm am jàmm ñoo a am moyen de problème ci ak musiba yi boo sàgganee ñu rey la fab sa xaalis tëdd ñu toj toj sa bunt lékk la ne la li nga amoon lépp kooka bu ñu ko jàppee dañ koy tëj tuuti bàyyi mu génn bu génnee gën a nekk selam newoon mu am ñu ko téyal seen i tànk bu fekkoonte ne leer na ne bu rey ñu rey la sàcc ñu dakk sa loxo bi léegi dootoo fi wala bu fekk sa xayaat la alquran wax léegi kon jàmm ne fi ñooy nim ne ñooy fee ci arab saudi boo seetee mboolem pays foofu rek problème yi am nañ ko Amérique dem nañ ba ne capitaine gaal gaal gi réer na mu ngi bëgg a suuf capitaine bi léegi xool ci ne mu ngi taxaw moo di fi ñu toll délinquance dafa mën a nag li ñu ko bëgg a yóbbee mooy li muy wax toujours dañoo xam la gën a ak bu ñu bëggee produit yu bari naan man yemale góor ak jigéen góor jigéen yemati yemati ñàkk a yemoo amu fi kenn ku nekk dafa am foo féete waaye danoo war a tàmbale ci tàmbale gi bay nun danoo ak buloon sax foofa ndax mu nekk danoo war a am aada yu bari yu ñu war a dindi foofu la ñu war a tàmbalee nañ dindi yàq gi nañ dindi yàq gi bu nit ngeen ngeen ñu dajale maye di yàq bu ciy amee noonu bu tëj amee ñu def ko festival kenn ku nekk loo amoon nga dugg jël ba ñëwee di noor di fàtte ci dee yooyu yëpp nañ ko bàyyi nañu seetaat suñu bopp dindi yi ñuy yàq yëpp foofu la ñu war a tàmbalee bu ñu ko dindee ba mu set wecc nag ñu soog a dem ci yeneen te bu boobaa itam nañu seet ne ñun kat ay Sénégalais nañu seet nañu jëlal am nañu suñu yoon am nañu lu jik am lu jik loolu ci ak yëfar yi sax Montesquieu boo defee Montesquieu waa na bala ngay légiférer ci ci réew da ngay tenir compte climat bi tenir mu ñu nag bi nga xamee ne gis nañ ne l'islam ni mu tëralee moo mën a tax nit ñi am jàmm ci adduna am na congrès boo xam ne dafa amoon ci Arabie saoudite ndax gis ngeen ne euh, tubaab yi gannaaw ñoom gëmuñu diine gëmuñu l'islam gëmuñu daanaka yàlla it gëmuñu ba nga xam ne mooy gëmuñu wi ñu bëgg dañoo am yu ñuy critiquer ci ñun ci l'islam ñuy critiquer dagg loxob aji sàcc mu ngi critiqué maanaam lu ñuy wax peine de mort ñu ngi critiqué polygamie daal ñu critiqué li ñuy wax esclavage bi nga xamee ne nag ñoom tànn nañu yi nga xam ne dañoo bëgg gëmloo julit ñi leen moo tardé l'islam te lu ñu war a bàyyi la ba ñu demee ca congrès ba ba ñu fay jógee ak ba ñu fay na nañ fa jógee na ndax dañ ne leen yéen day loi yi ngeen bëgg nun mu tëral ko dañoo bëgg ngeen wan nu résultat yi te noo ngi koy jële fa yéen ñi doxal luwaa yooyu nuy itam luwaa yi ñuy tëral te muy luwaa yi lislaam nu wan leen résultat yi nun de fii bu ñu noddee julli loo yor bu la neexee nga teg ko fi nga toll dem julli ji boo dellu sa fi nga koy fekk te appliqué atte yi lislaam moo ko may yéen nag nit day nelaw ci néegam am xaalis nit fekk ko fa rey ko yóbbu la mu yor yéen li ngeen amee ci dossier ci tribunal ngir àtte ko ci tooñ mënu leen koo àtte ndax ëpp na seen loxo te yéen lu yàgg-yàgg gannaaw police mënu la àtte lépp ndax bari bari tooñ crime yoo xam ne dañ koo organiser nga xam ne lu détective yi fort fort appareil yi ngeen amee mu mën a seet rëbb fu nit jaar li mu lu mu gën a perfectionné ngeen gën a bari ay tooñ ak i lëj-lëj ba du dañ mukk ni ma ko waxee woon sànq fay ni na mere nit fay ñu reyal la ko fab alali jàmbur dem amuloo dëgg ñu jox la ko ak ah, def lu rëy rëy rëy rëy ñu woyofal ko loolu lépp xam ngeen ne fu mu am jàmm mënu faa am mukk bu nu seetee ne lislaam ba euh, adduna ba mu sosoog léegi doomu aadama di yokk nga xam ne fii nu toll lu adduna daan dox ci téeméeri at daanaka ci mel menn at la ko adduna bi dox léegi ci ay invention ak découverte ak xam-xam yu bees yoo xam ne doomu aadama yi dañ koy dimbandikoo ak di ko lore loola lu tax booba ba léegi mënuñu fee jëlee ñàkk mënuñu fee jëlee xiif mënuñu fee jëlee tawat yi dal nit ñi mënuñu fee jëlee dëng mënuñu fee jëlee tooñ loolu lépp ñun bu fekkonte ne atte yi nga xam ne moom la ñuy doxal mu di lislaam yooyu yëpp fay na kon xam ngeen ne wocc gi ngeen wocc atte yi itam bëgg nu nit ñu wocc ko topp si leen si seen atte yi bu nu xoolee résultat yi ngeen am duñ ko mën a nangu mukk duñ ko mën a nangu waxtoo xamee ne nag dem ngeen ba nga xam ne jàmm ji ci seen réew yi moo ëpp jàmm ji fi nun bu boobaa nu xam ne nag seen loi yi moo gën sunu loi yi waaye feeg loolu amul kët mëneegu leen noo démontrer ne seen yi moo gën sunu loi yi nun nag noo mën a démontrer nun ci lu leer ne sunu lu yi moo gën seeni loi ñu gis ne kon doomu aadama lu mu gën a avancé rek gën a dëng gën a xam nu muy gën a dënge gën a mën a gën xam na muy tooñe ba gën xam na muy mucc ci tooñ gi mu tooñ fii ci àdduna waaye nag munu la nax yàlla lu yàgg yàgg tooñam yooyu dara du ko ci mooy ëllëg doomu aadama bi mu wàccee genn wàll nga xam ndax nit du dundee mburu rek nit ñaari principe bi ci nekk yii day dundee ñam bii di ruux di bindee di dundee xam boromam ak jaam ko ak jég gën koo jege nit ki nag bi mu fàttee wet ko dese genn wet rek ak bu gëmul itam dana am vide bu nekk boo xam ne ci ci moom ci jëmmam ci xolam ci biiram du am dara leneen du ko mën a combler bu ko defee nit ki kenn ku nekk ak sa tempérament nga yëg wàññiku wàññiku boo xam ne mu ngi ci yow bu metti goo xam ne duutu la may jàmm ñii dem comportement yi wuute ñii dem ba révolté révolté naan yàlla jubul ma yàlla jéggal terme bi naan le monde est décevant adduna bi dafa tas yaakaar lii jarul woon dund jarul woon bu fekkee yàlla moo bind leen lii ci nekk jarul woon mu di leen ñii làqu ci gannaaw stoï li ñu tuddee stoïcisme ñii dem ba ci suicide maanaam xaru ay nit ñoo xam ne dañoo réere yàlla lool umpule ko boole wuñ ko rek ci li am manque boobu mu leen manque nag di manquement bu metti ci seen biir xol te xamuñ lu ma doon xamuñ fu mu leen jógee xamuñ nan lañ koy dindee kenn ku nekk wëlbatiku jëmale sa bopp fa nga ko yaakaar boo ko yaakaaru fenn nga toog rewalte benn ngay ate wala ngay koo xam ne kii nettiwul waaye mu ngi yëg loo xam ne ni ngay yëge xiif war a lekk moom du ko yëge te xamuloo loola lu mu doon mu daal am ay lippi am ay drogué ñoo xam ne richesse sax mënatu leen satisfaire di am ay égaré am ay stoïque nekk di dem ca te muy aliénation wu doomu aadama la daw jëm di lu leen di gën a alak ci àdduna ak ci àllax bu ñu demee nag ci jamono bu mel noonu nit ñi war a seetaat seen position ñi nga xam ne amoon nañu garab bi maladie yëpp tëj ko ci seen umpule ko dal di yam képp ñi xamul woon amul woon benn garab xamul woon sax ne garab position yooyu ñu ko ne ca te xamuñu fu muy jëmee ñoom naqar wi ak njàqare li mooy gisuñu ne nit ñi jéem nañoo wëlbatiku jublu ci yoon wi leen di saafara yoon wi saafara seen jàngoro yoon wi leen di def nit ndax l'homme sans Dieu angoisse désespoir ngir jégal ma maanaam njàqare ñàkk yaakaar jubati reyante sàccante ŋàññante njëkkante xuloo giiroo mooy mu jëm ci loolu rek lay jëm mënu la nekk ndax doomu aadama yàlla daf koo bind mu nekk ci équilibre boo xam ne maanaam tawaazun boo xam ne bu manqué rek nit tawat na moraat na tawat gi dara mën la faj kon nag bu loolu amee lu dem ba loolu nag indi problème yu bari yoo xam ne amuñu gisuñu seen solution mu mel ne gaal bu nekk ci digg géej capitaine ba réer feebar jaaxle jëmatu la contrôlé xamatu fu mu jëm mu bàyyi rek bato bi ak ñi ci nekk ko yàlla jëmale ko courant bi jëmale rek mu jëm ko ñent ñent ñëw ak si dama dama di ko xëccoo muy nashad boobu ngeen daan dégg nafsu ak cheytaane ak hawa ak dunia yooyu ñeenti noonu yooyu xëcc doomu adam bu nekk fa fa alkande gën a jege gis ay formation yi ay ay mboota ay njëkk ay daj ndaje ay association ay union yoo xam yu secret mu wër ne seen bi du lu baax ci doomu aadama moo ñu def ko secret mu bari ni ñu farlu lool ca la ñu nekk di ca liggéey guddi ak bëccëg di def seen campagne di gagné ay adepte di leen yee ca loola ànd ak di leen gëlëmal itam fab seen genn wàllu liberté fab seen ñaari ñetti kaari liberté di leen jëfandikoo ñoom ci li bëgg di leen mos ak tuuti ñu di tax ñu dem ah doomu aadama de mu ngi ci li ñuy wax li nit ñi ci kaw suuf ñu ngi ci wéew yi ci ñu ngi ci ba ñu gaynde li ma soon am lépp amaat ci yeneen i forme njaam gi ñu demoon ba ne abolir nañ ko maanaam dindi nañ ko ci kaw suuf ñu dem ba ñu di ko def ci yeneen i forme yu yées yu gën a bon te ñi ñu koy def ñenn ñi rek lépp lu bon ci ñoom la jëm bët gànnaay bu ñu nàmm bu ñu dagg ci ñoom rek liñ ko jëmale boobu yeewu leen di leen jëfandikoo nangu seen alal nangu seen xel fab seen xol itam def ko ci seen kilifa yooyu nga xam ne dañuy bëgg ñu di leen yéem rek teg leen fu nekk ba lu ñu leen wax duñ ca baat lu leen sant ñu def ko ñu leen xool bëtu yéeme yéem ak bëtu naw ak bëtu ragal ñu nekk seeni sang ba faw ñoom ñuy seeni jaam ba faw ñu taxaw ci loolu nag farlu ci ñenn ñu ci nekk ak wet ga ñu féete rek waaye li ñu jëm lenn rek la li ñu jëm benn la حقا لأرب الخدعة الدس دجل أدنى اسدل وإن الكفر ملة واحدة كفر لم ركلة يفر كيف يوبك بالكبر يوبك من يمر تدني دمبلنتي صلى الله عليه وسلم وخوني يوشك أن تتداعى الأمة على العربي كما يتداعى الناس على قصرة ليه نجس xeet yépp wootante ni ñuy wootante bu ñuy añ wala bu ñuy reer tiim palaat bi ñu wootante ko sukk waa lislaam di leen lekk noonu la ko gis ne loola ak ci te li ko gën a njëkk sulli moo di islamophobie bii rañe léegi ci Occident muy Europe muy Amérique maanaam tiit ñu mu tiit ragal bu ñu ragal l'islam dolliku boobu muy dolliku

di leen xalaat loo di leen fexe loo ñun ñuy nelaw nelaw rek di xandoor day gént kenn yeewuñ ñun tamit yeewuñ yeewuñ suñu bopp ñoom cheval de bataille bu ne ci adduna war nañ ko pour xeex l'islam ba bu yàggul mu mujj dégg benn jiifar boobu ñu wax ne dañ ko taarif ñu tudd ko ñu naan Salman Rushdie teg kenn seen bët ci ay état yu yu lislaam nga xam ne buñ tuddee seen bopp république islamique itam ay jullit dafa ëpp ñu di leen ruuxale ñu xeex ngir ji ak mbañante ci seen biir ba jullit ñi duñu dajaloo nekk benn ngeen Liban ni mu demee gis ngeen ngeen lii bi ceeb te loolu lépp safara wuy tàkk loo xam ne matt mi du lenn lu dul jullit ñi kese mais ñu war a delloo seen xel nag kon xam ne li xew personne n'est plus dupe war na ko xam wala bu ñu ko xamul dootuñu ko xamati ba mukk bu ko xamee ñu war a kon delluwaat ci seen bopp defaraat seen bopp.